ci ak Oumy Samb alors euh, Apulaye euh, <laughs> voilà Massa Oumy <laughs> maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa ngi ci jàmm. maa ci jàmm ju bëri. xam naa j'ai un chat kay tigre lay nurool sax nag. <laughs> démb gaynde est-ce que du gaynde teraanga bonjour à la team et puis bonjour à nos très chers téléspectateurs. Mm. Euh, soxna naata ñu tàmbali météo du jour xanaa taw bi certainement. oui c'est la pluie bu ñu buy gagner du terrain sur la quasi totalité du pays maanaam dëkk bi yëpp bu ñu si génnee Saint-Louis moom dëkk bi yëpp. moom ñu fay euh, séntu ay taw ci suba gi ci yenn gox yi ay taw yu yemamaay lay doon ci yeneen gox yi moom ay taw yu gën a euh, xaw a am doole mi ngi noonu dënnu bi moom ci Kédougou Kolda Sédhiou ainsi que Ziguinchor et puis pour les températures moom ñu ngi ko euh, tàmbalee 23 degrés du côté de Kédougou lay doon la température minimale 24 dinañ ko am ci Kaffrine 24 ca Matam 26 degrés pour Saint-Louis et puis Dakar Diourbel 25 ci Fatick Euh, toujours 24 degrés pour Ziguinchor 24 à Sédhiou également ak ànd ak euh, guusaay boo xamante ne le taux d'humidité euh, mu ngi toll ci 80 pour cent sur une échelle de 100 bien sûr sur la quasi-totalité du pays également ñu dem digg bëccëg soxna naa ta xool mhm. naka la fas yéene tëddee jaww ji donc mu ngi noonu ay taw toujours ci bët saalumu réew mi taw yoo xamante ni dina ànd ak dënnu bi fu mel ni Kolda Sédhiou Ziguinchor le parapluie bien sûr ngeen bañ ko fàtte et puis taxaw ci diggu champ bi euh, pour les agriculteurs baykat yi Euh, Tambacounda foofu tamit ñu ngi fay xaarandi ay taw ay taw yoo xamante ni moom foofu dënnu bi c'est pas encore localisé li ci des moom fu mel ni Louga Matam Thiès Dakar Diourbel Kaffrine Kaolack Fatick foofu noonu nuage dense ba leen fay am mooy cumulonimbus bi may wax rek c'est un nuage qui est assez euh, assez dense en eau dafa fees dell ak ndox donc avec risque de pluie lay àndal euh, ay wis wisal comme ni mu demee démb rek fi mu toll nii sur les deux jours à venir selon bulletin bi ñu ngi euh, sur la phase des pluies pour Saint-Louis moom leeraay lañ leeraay lañ fay am dëkk bi yëpp euh, yor nuage dense ak ay taw Saint-Louis moom ñoom ils sont au plein en plein soleil ànd ak touti niir par contre euh, ca ca foofu mu ngi noonu soxna naata ci tënk rek ay taw ci suba gi lañuy ñuy nemmeeku euh, ci gox yu bëri ci réew mi et puis l'après-midi dinañ am ay leeraay ca Saint-Louis ak un léger risque de pluie ci centre bi jëm penku réew mi mu ngi noonu tout ça ça résulte ci coppite Euh, jaww ji le changement climatique on la fin du de juillet taw bu mag bi moom yegg seegul ba tey moom la euh, baykat yi euh, di xaar les agriculteurs c'est pas encore mais xam naa ci ay fan yu néew rek taw bi dafa xaw a timide pour les marées 7h55 marée haute marée attends 7h20 pardon première marée basse marée haute 7h55 chronologie bi 13h45 et puis 20h allah euh, dinañ ci am également une marée basse ñu xool euh, le soleil moom 6h52 la yeewu tey et puis coucher du soleil ci 19h40 lay doon euh, ci kanam tuuti incha allah soxna naa. ci kanamee ma ñu dënkal leen <laughs> à tout à l'heure merci beaucoup Miss Samba. foofu fan la. Tunisie. ça c'est extra ouais. c'est euh, extra ñoom ñoom juumuñu 57. non loolu nekkatul canicule sax. <laughs> loolu nekkatul extra 56. loolu day tàkk combien 57 degrés. 56 ouais, c'est c'est extrêmement chaud. mais je pense chaud. que daaw tamit en Inde tout ça. Euh, y avait à peu près ce phénomène. Euh, moo tax da ngay jekk rek àll bi tàkk ci États-Unis tàngoon na tamit bu baax a baax. je me souviens l'année dernière. loolu mooy indi lakk yi sax coppite jaww ji la ba tey ça résulte du changement climatique. ñu mm. noonu. merci beaucoup Oumy ba si kanam incha allah ci météo bi en express euh, léegi dañuy jàll ci euh, de quoi est-il le nom.